asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 20 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi fa nu koy xëy doore yëglikaay bi di sunu làmb la yëglikaay bi nag ñaar la xëy tey wane ci xëtam mu njëkk Garga Mbossé rakki sos dëkk ca Parcelles Assainies ki nga xam ne moo di Sa rakki Balla Gaye numéro 2 dëkk ca Guédiawaye ñaari mbër yi nag la xëy wan ñu ko mel ni kii nag seenub combat am na ko koy démarché wala boog ñu koy démarché yëglikaay bi nag ca Garga la xëy dafa gëstu nee na leer ba leer daal Garga moom fay nañ ko fukki million ak juróom mu reseté ko maanaam daal delloo ko nee na du bëreeg Sa Thiès tey ci 15 millions suba waxi noppi fasu ko sax yéenee def sunu làmb nu ko xëy wax ci gëstoob Abdoulaye Dembélé waaye ka nga xam ne nag moom lañ ko war a booleel muy Sa moom daa mel ni yëglikaay ba wala ci gëstoob Abdoulaye démbale moom dafa mel ni moom saa moom boo xoolee mbir ma déggoo ga bu dee 100 la moom 90 pour cent ya déggoo na ci ak promoteur ba ngir nangoo jàmmoorloo ki nga xam ne moo di garga di rakki zos moom ma nga xam ne mooy Sa Thiès di rakki Gaye numéro 2 yëglikaay baa xëy tey ñëw dina ko wax keneen koo xam ne ni moom pare na ngir jàmmaarloog ñett ña ko topp di ko dëkk booba ba tey mooy Modou Anta ba dëkk Kajoor ca Thiès Modou Anta nag nee na pare naa de moo xam ama neex bu Tëngéej la wala muy jën kayri bu Médina wala ku wen sa ba ñi nee na daal ñoom ñett ñi ku ci ñëw damay bëre ak yow l'essentiel que nag moo ne na mbir yi du tage ci man xanaa kay ñu fay ma rek bu nu may fay xaalis may encaissé di jàmmaarloo ak ñoom ndax jàpp na ne ñoom ñett ñi ku nekk yaa ngi koy wër wagaaj bëgg a bëre ak ak moom nee na nag pare na Moodu antaa wax ki nga xam ne nii moom carrière ci pare la jëm maanaam jeex ci wàllum bëre moo di bombar ji bombar Bombardier nag yëglikaay baa xëy ñëw ci moom nee na ba mu bëreeg ama seen ñàkk komba ba def année balance atum ren mi itam xaw a jaxasoo moo tax nag yëglikaay bi sam pop laaj nee na Bombardier est-ce que nekkul ci xeexam bu mujj ngir génn ci làmb ji ak génnin bu baax amub combat daa mel ni kii daal loolu fi mu nekki nii fa la war a taxawee di ko wër keneen koo xam ne moom combat am taxawoon na ñaari fan mu bëree ko nee na daal ca lañ koy joxe xibaar ne ko combat ba moom des koy aj muy Amet Dem bu caaroy Amet Dem digganteem mag Valdo ba ñu waroon a bëree ca Linguère daal loola Amet moo xëy tey ñëw di ko leeral ci yëglikaay bi nga xam ne moo di suñu làmb ci aju combat ba nga xam ne ba combat ba ne see ñaari fan la ñu ko yëgal boobu xibaar keneen koo xam ne moom soriwul am dem di Tidiane Faye dëkk ca Lansar Tidiane itam mu nga xëy di wax moom daal professeur Lansar ba la mu xamle guddul gàttul nee na xale yi nga xam ne daal dañoo prouvé am lu ñu wane ci làmb Tidiane nee na pare naa ngir dëkk ak ñoom wala boog jàmmaar ak ñoom may leen sens bëre ak ñoom ñaar ñi nga xam ne moom may nañ leen sens ba ñu fa yéenee bëre muy fils de Balla ak général Malick sunu làmb ñëwaat na ci nee na Assane Ndiaye nag moo fa jaar dimanche ji nu génne day wala génne arène nationale ñoom ñaar kër yëngal nañ ko ci ab dëkkante bu méttee méttee méttee ku nekk daal yaa ngay dig sa morom loo xam ne day dana tar lool ci moom bu ñu yeggee ca seen combat muy général bu Malika ak fils de Balla bu Géejawaay ñoom ñaar daal seeni mbir moom fi mu nekk nii ah ci luy baax la de boo bëggee dégg-dëgg ruq ba sedd ab du fa am defante ba mu saf sap lañu nar yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu ko beneen xale boo xam ne mi moom ab fi mu nekk nii saf na sap muy ka nga xam ne moo tur wa mu wuyu borom bëreem moom da koy teg caw yoon ko ne ko bëreeg yow daan la dem sunu làmb xëy wax nu ko ne na juróom-ñetti combat juróom-ñetti ndam ci Mor Kang Kang te nag na mu nar wala la mu bëgg wax na ko ne na moom daal couronne roi des arènes bala ca Parcelles Assainies te Modou Lo yor ko ne na fa la tegu bëtam façon yéene nag ne nañ am na combat digganteem ak caatu ngéwél te Fallou Ndiaye moo tëgg lu mel ni kii noonu ñoo xam ne nii moom ay promoteur lañu démb seet woon nañ ministre des sports Matar Ba muy ma nga ña nga xam muy les promoteurs promoteur authentique ministre ba daal moo leen woowoon démb doon waxtaan ak ñoom ci situation bi nga xam ne ci la réew mi toll rawatina làmb ji ci njiital ka nga xam ne moo di Xaadim Sàmb andoon ak ñoom ak ñoom Abdoulaat Njaay ak Baaba Jaw ak ñu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag waxtaan wa moom daa mel ni daal leer na ci mbirum làmb ji ak nanu ajee ya ca aju mu mel ni kii ñoom itam nangu nañ ko ndax nag jàpp nañ ne day ay sene sénégalais lañu tey itam li leer ba leer moom fu nuy feese moom dem fa di fa góom kenn du la déglu wala lay moo amunte ministère des sports ña nga xam ne nii moom ci xeex la ñu nekkoon mu mel ni nag Covid 19 ba moo fa jaar muy arbitre ya mu mel ni ki nag ngànnaay ya moom dañu koy aj ba Covid ba jeex ñu nag xeex seen mu mujjeelu xeex ak CNC yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu ko mu mel ni ki nag ci mbir mooma ca la ñuy continuer ci wàllum. coronavirus booba dem ca record record nag daa xëy tey waxtaan ak i entraîneur ay tëggkat ak ay waykat waykati làmbi simple ya rawatina ak tëggkati làmbi simple ya ka jëkk a wax mooy faye mbooj faye tey dana li leer ba leer moom fi mu nekk nii xanaa toog muñ daal ba nag li am mooy wér-gu-yaram moo ëpp lépp ka nga xam ne moo di mbayang loomi itam loolu la wax de mbayang daal dina fi mu nekk nii day mu nga kër far ba di lekk li nga xam ne nii moom moo di ay ay bagaasam daal maanaam di dund dundam bu neex yàlla lii jeex ndax nag nee na daal feebar moom fajoo ca gën te itam jàpp na ne la ñu santaane ci wàllu wér-gu-yaram nañu ko topp di ko def ka nga xam ne mooy ndey faatu aadama jëli tamit nee na moom mu nga kaw la toog jàpp boppam donte mbir yi metti na lool waaye nag feebar dafa gën a nekk farata lépp te faju itam mooy gën a wóor def lañ leen wax nana moo tax fi mu nekk nii moom micro ya wéer nañ ko ña ca des itam daal leen tëggal wéer seeni ndën ndënn ca jëkk mooy Maodo Faye Maodo ne ne tam metti na torop ci kër gi ndax nag ci tëgg mi ak yu mel ni ki noonu lañ daan jëlee dépasse waaye nag bu feebar taxawee moom ah loolu yëpp des koy fàtte te jéem a faju moo tax ne moom mu nga ca côté madame toog ja boppam ka nga xam ne moo di ba moo ngoom tamit lu mel noona la wax moom mu nga toog gay yi metti ko muñ daa jàpp ne la santé avant tout loolu la Momo Ngom wax entraîneur yi tamit wax nañu Amadou Kati Diop moom nee na benn combat fi am fi mu nekk nii mooy fexe daan corona bi balaa ñuy wax leneen Max Mbargane moom la mu xamle daal na li leer ba leer ku ne toog ci sa coin di liggéey moo gën a wóor ndax nag ah dana ma tag du mat jox sa loxo dajadul wóor zil balla itam soriwul wax jooja de moom itam loola ca la ñëw Pape mbay itam wax lu mel noonu donte bu ko laajee ku ko ku ko ko sollicité mu ñëw ànd ak yow ngeen liggéey waaye kenn lay doon Pa Abdou Gueye di ab entraîneur nekk ca Fass itam ne na fi mu nekk nii moom liggéey ba la cëpp guddi lay doon te ku koy def yow yaay beru defal ko sa bopp ndax nag moo gën a wóor fi mu nekk nii loolu mooy li nga xam ne ni ñoom la ñu gis ñoom ca wàllum coronavirus ba ak nañuy jàppe entraînement fi mu nekk nii waaye keneen koo moom am xibaar la nekk ca Gambie ñu koy wax Ousmane Diop Ousmane nag daa mel ni promoteurs yi Gambie jox nañ ko bopp mu jiite leen ba fi mu nekk nii daal li leer ba leer moom ku fay promoteur nee nga ko kaay yaanu doy nga jiitu ñu topp sa ginnaaw moo tax Ousmane itam ne leen comme yéen ma jiital nag li leer ba leer daal bépp promoteur boo xam ne da ngay daggati licence di tëgg lamb maa la koy daggal ci sama xaalis te combat boo taxawal war koo tëgg danaa génn xaalis bu bari teg ko ci say loxo jàppalee la ko mu mel ni ki nag li leer ba leer daal borom maafe wala boog borom borom tiga dege moo mën a maafe yàgg maar yàgg maar maa lay daggal licence yàgg maar booy tëgg ma génn xaalis jox la loolu la Ousmane Diop def ca Gambia ma mel ni kon foofa moom neex na lool waaye balaa gën a mën a neex ba yegg ca lool dañuy ñaan yàlla coronavirus bi dem te ñu bàyyi nit ñi ñuy dox di lëre ak di leen jaxase naan leen boo ubbee téere bi fekk ci lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romb na loolu diine du fawukaay du itam fees di caaxaane ku feebar fajul defal la la médecin yi digal moo gën a wóor te moytu ndax nag moo ëpp solo waaye wax yoo xam ne kenn xamul bopp bee genn bi di tooñ lu toll ni Moustapha sallallahu alayhi wa sallam man damaa yaakaar ne xanaa fi mu nekk nii xaw ma lu xew wala boog danoo ni ci mu jóg jamono man daal am naag jaaxle yàgg. salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar ci àjjuma ji di leen bu baax di ànd ak yéen ci seen revue de ren comme ni ñu koy defee chaque jour ginnaaw Babacar defee revue de a pare dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy jàngat bi ànd seeg euh, sama mag sama xarit Babacar nuyu naa la. Aïssatou Faye maa ngi lay fay Aïssatou démb seega dama lay laaj leen nu quoi lu mu tey dama la koy laaj nga tontu ma démb lu tax nga supprimé sama mag sama xarit bi te nga wax ko ba Sénégal dégg ko ma di ko dund nga di ko dund nga dindi ko lu tax nga dindi ko maa lay fay Babacar du ma si ñëwaat danga may tendance tendance bi du la ci topp dama lay bàyyi si biir léegi dañuy daal di dem si li nga xam ne ni mooy jàngat bi daal di ñëw ak euh, ki nga xam ne mooy Garga Mbossé mu ñëw euh, ci sunu lamb di wax ni nag euh, li ko promoteur bi fay pour mu bëree ki nga xam ne ni mooy Sa Thiès suñu lamb di nga xamante ni Garga nee na nag dafa tuuti parce que 15 millions la te parewul pour bëree Sa Thiès ci 15 million ah waaw loolu de ay sama ne su ci lu bëri. waaw pata sama gënal ñaam bi moom dañ ne kuñ ci tëj rek lay layal aayul wala baaxul yaa ngi dégg garga mbër la ci combat la jóge ne ci dynamique bu neex yaa ngi dégg tey defe naa bu ñu ko fay lu toll ci 15 millions ngir mu war a bëri ak Sa Thiès mu jàpp ne adversaire bi ëpp na loolu adversaire bi mu war a bëreel du bëri ak moom ci loolu defe naa loolu ay droit am la itam yoon da ko koy daal di nangul parce que nag lu ma la wax mooy que ni mbir mi jënd ak jaay la yaa ngi dégg lii laa mën a jëndee lii laa mën a jaay lii laay jar ngeen waxale ba déggoo su ngeen déggoowul uti leneen mais la am solo nag mooy ak làmb fi mu toll li may digal garga di ko digal ñu bëgg combat ba ne ñu gën a waxtaan ndax ñu am solution ndax bañ a bëre bi itam amul njariñ yaa ngi dégg donte prix ba xeeb na ko waaye mook Sa Thiès yaakaar naa fi mu nekk nii dama foogoon ne ñoom ñaar ah Euh, ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wet lii la te jël bunt bi waru leen a boole waaye nag lu loolu am am am terewul làmb xaalis la mbër mu ne am nga looy jar yaa ngi dégg kon promoteur ba ko bëgg wala ña ko bëgg ñu gën a góorgóorlu waxtaan parce que garga xam naa ne bëgg na bëre Sa si bëgg na bëre waaw. waaw ba tey si côté Sa Thiès ñuy xamal ni que daanaka daal euh, lépp sotti na ba 90 pour cent daal taxaw na presque si côté Sa Thiès. waaw saa moom actuellement bëre la bëgg parce que lu tax mooy booy ñang da koo daan. te mu ne newoon ci tàmb voie bu am solo booy na arrêté ko mu jóge ca def année balance te ren defe naa ne ak saison bi ni mu jëm nii ñu ngi ci mois de mars am 2 mois yoo xam ne actuellement forcément danañ ko pause saison jëmaat ci fin saison kon defe naa ne tey moom su gisee lu xaw a jaadu wala lu jaadu ci lu mu jàpp ne na si moom ko jël bëre yaakaar naa actuellement moom si phase boobu la toll ba tax na daal ñuy wax rek promoteurs yi nañu gën a waxtaan surtout ñu ko bëgg xëy na bu waxtaan wi amee solution mën na génn quoi pour pour ñu dégg pour combat boobu keneen koo xam ne nag euh, Babacar euh, moom d' accord na pour bëre muy ki nga xam ne muy Modou Anta dëkk yi bëri na lool coinci ama neex ah euh, jën kay rek ñëpp bëgg nañ bëri ak moom waaye nee na pare na nee na fekk rek euh, prix bi daal di daal di si topp waaw nañ ko fay lu ko jar mu daal di bëre ba tey njëg ñëwaat waaw njëgay ñëwaat ay Aïssatou mu mel ni kon daal affaire bi njëg bi moo taxaw moo téye affaire yi su ma déggee mbëri yi di addu daa mel ni njëg bi la waaye tamit dafa mel ni promoteurs yi itam bëgg nañu waaye ñoom itam dafa am loo xam ne olof ne na bët du yéen waaye xam ne lu boobu àttan am na loo ne itam bëgg a tëgg bu la ko taxee def ah Euh, Aysatu bëgg mar mar naan bu la taxee naanum puutin mbaam sabat bu keroogee bu robinet ubbee nanga mi jafe-jafe moo tax ba nga xam ne comme ñoom ñoo bokk mbir mi muy promoteur bi muy mbër mi nañu jéem a waxtaan pour que combat yi mën a am ndax mu doon tam moom boo ko joxee Quench lamb ju amateur yi bëgg la ama neex waxi noppi Diène Kaïré waxi noppi waaye lépp tamit day aju ci waxtaan rek parce que xam naa itam nekk na combat boo xam ne nii wala adversaire bu nga xam moom mu doon tam promoteur yi bëgg nañ ko ngir xool kuñ koy boole si ñooñu waaw ñu continuer ba tey si lancé boobu noonu ak ki nga xam ne nii mooy euh, Tidiane Faye Tidiane Faye ñëpp euh, xam ko ci lamb ji ak li mu jot a def Tidiane Faye mu ne léegi nag euh, pare na pour tendre perche ñi nga xam ne mooy espoir yi nga xam ne wane nañ seen bopp. waaw actuellement loolu moom defe naa moom fa la toll tey ci lamb ndax dama naan Tidiane ci côté lamb bëree. ak xam-xamu bëre amul tey lu mu ci waneeti luñ ko naan dañ ko ci xaar pour mu prouver ko ci parce que carrière macha allah bi mu ciy toll dëgg dëgg dëgg wane na boppam ba ñëpp xam ne kii mooy Tidiane Faye ndax fekk na nag sportif di nga toll benn moment boo xam ne baisse de forme day am sa lépp day wàcc actuellement xëy na foofu la toll mais génnagul si làmba tey xale yi prouver ah c'est normal mu dékk leen loxo may leen sens ñu mën a bëre ak moom wan ko ndax war nañ ko mën a mu may xale yi seen sens waaw. waaw ñu continuer ba tey ak ki nga xam ne nii mooy euh, Bombardier Bombardier annoncé woon li ko dese si euh, lamb bëriwul benn wala ñaari at la mais suñ lamb li ñu xamante ne tey la. defeem gën a rëy mooy daal di génn si lamb ci ak ndam ginnaaw bi ko Eumeu Sène daane jël couronne bi waaw loolu dañ koy xaar si moom parce que tamit defe naa ci làmb def na ci lu benn mbër deful parce que moom moo dégg roi des arènes ñaari yoon ci biir carrière am loolu benn mbër amagu ko si làmb kon moom it amatul lu muy prouvé xëy na nag benn salance moo ko dese mooy tey jeexal carrière am ah génn ci bunt bu mag bi comme ni ñu koy waxee loolu moo ko dese actuellement xëy na nag combat boobu ñu ngi wax combat am depuis boobu ba tey mais yàlla dogal na taxawagul xëy na su taxawee nag ah dina jéem a def le tout pour génn ci bunt bu mag bi waaye ndax dinañ ko ko mën a may ca ka muy bëreel loolu tam question lay doon ndax ku jël sa rek ay surtout dafa pare pour daan la mais Bombardier moom tey ci làmb amatul lu ko nit naan prouver ko wax dëgg yàlla parce que ku def ñaar yoon ci benn biir carrière amatul looy prouver ci waaw ñu dem seeti arbitre yi arbitre yi seen euh, coow li nekkoon fi diggante ak euh, CNG ñoom nag euh, ginnaaw bi nga xam ne ni mooy coronavirus bi tax na lépp taxaw ñoom it ñu décidé daal di suspendre seen xeex daal di toog di xaar ba jëmmi jamono ba lépp jàll incha allah pour ñu def seen. xeex bu mujj maanaam asu final bi. waaw loolu lay wan ay ay sato euh, la ma daan dégg ñun Serigne Bamba waxoon na ko ne jàmm gën àddina bi nu ne ëllëg yowmal xiyaam moo ca gën waaye daa mel ni jàmm gën fépp la mu waxoon dëgg la de parce que lii yëpp. tey lu nit di tal day fekk nga ne ci jàmm rek yaa ngi dégg waaye bu jàmm amul doo tal dara ay ay ay satu fay moo tax li am nii te ku ne xam ne ne corona bi du jàmm moo tax fi mu nekk nii ku doon xeex wala ngay xuloo mbaa ngay tëgg wala ngay def loo mën a ne fi mu nekk nii moom defe naa talatoo ko ñi doon terroriser nit ñi sax talatuñ ko fi mu nekk nii ndax dañuy dawante kuy daw sa moroom nooy xeexe kon am na solo arbitre yi ah nañu bàyyi ba yàlla def Covid bi jeex yàlla na Covid bi jeex nag yàlla na jeex sax tey ñëpp mucc ci waaye la am solo nag mooy man la ma waxoon laay waxal rek arbitre yi ak CNC bi pour man benn la ñu nañu waxtaan Aysatu waxtaan ay réglé lépp. nañu waxtaan xam ne ñoo bokk Sénégal ñoom ay doomu sénégalais lañu kii jiite làmb ji doomu Sénégal la te itam ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj nañu waxtaan pour que situation boobu ñu régler ko mu féete boor ndax ministre bi dem laaj naa ko ci mais moom nee na loolu mënagu cee wax ndax coow li actuellement ndax nag booy boot jot jotle woon Aïssatou Faye doo ca boole booti gam te fi mu nekk nii dañoo tollu ci boot te li nuy boot sax mbootu yi jotul kon gamb yi du ci mën a bokk man ay olofu Babacar daf may dépassé parfois dañuy continuer ba tey ci li nga xam ne mooy lancé boobu noonu daal di dem euh, record fekk fa euh, li nga xam ne ni mooy ñoom euh, ñoom Momo Ngom ak ñoom Mbayang Loum ak tëggkat yeeg woykat yi ñoom ñëpp ba ci entraîneur yeeg borom écurie yi ñu daal di ñëwaat ci li nga xam ne rek mooy aménagement yi nga xam ne moom lañ def par rapport ak jàngoro beeg li ñu digle daal ku nekk na ku amul looy def daal na nga toog sa kër ku nga xam ne ni yaa ngi si lii nga jéem a moytu ñoom daal dugg nañ ci lancé boobu noonu noonu la war a demee ay surtout xam naa wala fi dina la jaxame dafa am loo xam ne dafay baax ñu xam ko xam nga tey bébé paate mais nga yor mënoo koy boot di ko takk mbootaay li jotul nga wut ay gamb di ko ci doo dolli doo xam nga ab gamb yaa ngi dégg moo yomb bu wow mënoo loolu manta ne yaa ngi dégg maanaam mooy li ma la waxoon sax moo ñëwaat ci record rek ça veut dire que waykat yi ñoom moomoo ngoom yi di tëgg ak ñoom euh, nu ñu koy waxeeti mbayang di way ak nday faatoog ñoom faye mbuj ak ñoom Maodo Faye actuellement am na leen lu ñu tal yaa ngi dégg lu dul tey am tëgg ak ay way parce que bu ñu leen ndaje moom kay tëgg ak kay way ñoo njëkk a tax ñuy wax ndax ñoom ñoom ñoom bu ndaje amul du ñu dem kon yaakaar naa ñoom it li ñu wax en tant que ay sénégalais ak ay sénégalaises rafet na ci record ay wane nañ ne ay citoyen lañ parce que lu met mënti xew wéer nañu lu ñu doon def conseil nañu nit ñi ci li ministre waa ministère bi wax ak waa santé bi pour ñu topp ci moo lay wan ne kon Sénégal daal fi mu nekk nii ñun ñëpp ñoo bokk nday bokk bàyyi entraîneur yi tamit loolu la wax ne ñëpp kon wax bi benn la Aïssatou ànd xeex daan corona rek moo fi nekk actuellement macha allah Babacar yàlla nañ ko yàlla teggil ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñoo ñu suivre di jënd seen euh, connexion di ñu topp a chaque fois ñu leen di jaajëfal di leen ñaanal ajuma euh, jàmm ak salaam di ñaan yàlla comme ni ñu koy defee chaque jour rek li nga xam ne ni moo fi wàcc muy jàngoro ji nekk ci àdduna bépp ñi ñaan yàlla saafaral ñu ko ñun ñëpp ku muy Sénégal ak dëkk bu mu munti nekk rek yàlla na ko yàlla euh, saafara dëkk bu mu yegseegul tamit yàlla bu mu fa yegg ñu ñaan yàlla rek ñi feebar yàlla yëkkati leen si jàmm ñi mu dalagul yàlla musal leen ñu muccal leen surtout suñu mbokk yi nekk Europe yi nga xam ne fu mu toll nii jaaxle nañ dematuñu dikkatuñu sama xel nekk ci

tamit ki nga xam ne mooy Amar Gueye Aïssa maa la sut di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre ñoom Ndongo Fall Italie xam nga ñoom euh, Serigne Diour ñoom Tuuti Yaay Sarr euh, Espagne Euh, ka nga xam ne nii mooy Khadiros Ndiaye xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Asi Diagne ci Mauritanie moom moo di Abdou Samad bi nga xam ne day def tey anniversaire am ne Leewtoo koy nuyu di ko wax happy birthday to you ak ki nga xam ne fans club Babacar la bokk ñu koy wax Cédric Malserine Ndour yàlla bu Leewtoo mi di nuyu tamit sama waa village waa ak yaay rawatina waa commune Ndondol Mbombo yeeg Njamaan Gàttal dëkk yooyu yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm di wax ne daal aysa yàlla na yàlla def jàmm yàlla na feebar bi dem waaye caaxaan yi ñu ci rax nañ ko baax yonent bi du fo du fowu kaay yaa ngi dégg parce que jullit bi gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa wara su ko wax yenn sax mu di ci bàyyi xel bu dee ngëmam am na dëgg-dëgg ay ubbi lii gis lii yooyu amul sens yaa ngi dégg nañu faju def li ñu docteur yi wax jàmm ne ñooy Sénégal ñoo ko bokk yàlla na Covid 19 bi jeex tàkk tàkk Aïssatou Faye maa ngi lay béggee jox leen rendez-vous lundi incha allah ak Ndeye Coumba